taalibu sëñ Madiaw Baxal la mm-hmm. dafa wax ne dafa wax waxtu cooroon woo xam ne mm-hmm. dañoo jamono ju doy waar lool ba commencé nañ di séddale café suukar mm-hmm. ne nit ñi ràng mënuñu caa am ne mu dégg commencé nañ di jàmbat sëñ Madiaw ne mu rocciku daal di ñëw ne ko ah Jaw commencé nañ léegi séddale café suukar te euh, donte sax gi téyoo ko it nga jox ko dongo yi dana ci am solo lool te commandant ngi tudd sa tur yi te nit ñaa ngi rang te mënuñ ci am waaw topp ko rek di ko wax ba sëñ ma jaw ne ko waaw waaw bisimilah mhm. daal di sol mhm. ma jiitu mu ci mhm. nee biñ demee ba jub bi rek sëñ ma jaw jekk ne wañet waax waax mu tàng Cheikh Penda nee maa ngi daw te mënu ma koo jot nee na bi ñu yegsee mu daal di jublu penku daal di yëgg soxna bisimilah Cheikh Penda damaa xam ne bu ma sëñ Bàmba seenoon ci kanamu commande ak may sàpp kafe ak sukkar hmm. dootuma may dara <laughs> waaw da bërit dugg ci néeg bi dafa kap hmm. nee na ñu toog ab diir rek hmm. ab oto daal di ralentir sëwër bu wàcc nuyu woon ah, ma jaw soxla ñu ne ko ah sëñ bi daa tàng ba fatu de xam naa dana aji nekk di ko de waaw mu jékki-jékki ne kàccet bunt bi wala da ko yëg noonu lu mu doon mu ne ko waaw ah, sëñ Basiiroo ma yebal est que. Mm. oto bii de saako sukkur ak saako café. cey waaw mooy ñu wóor woon sëñ Tuubaa. Mm. fi dara nekkut it. Mm-hmm. dañuy xam ne sëñ ko defee ni si tuuti rek sëñ bi ñëw. sëñ bi ñëw waaw noonu lay te mujj na dem ba. Mm-hmm. daara ji riir. yàpp mm-hmm. oto boor yi. am na mu xàddam bu ñëw na ko waaw yow de xam naa sax. Euh, li la sëñ Bamba defal dëgg la waaye ñàkkut looy wér de. waaw nii. ñuy doxee daal mu ne ko waaw am naa nooy wirdi kay nañ ma jox xalima ak daal est-ce que waaw daal ne ko mahabatu abdul xadimi wirdi wa hiya lada sil harsi xayru wirdi est-ce que waaw mahabatu abdul xadimi takfi sarran wa an jalbi xuyuran takfi mahabatu abdul xadimi tuxti barakatan min barakati lmuxti waaw mahabatu abdul xadimi janna tudxilu ahlaha min insil janna waaw ne ko waaw lii laa lii laay wirdi waaw bëgg sëñ Bamba Mm-hmm. bëgg sëñ bambu mooy ngeen mooy ngeen gi wérdu ca borom aras bëgg sëñ bàmba moo gën a gaaw ci booy fekk wala ngay jonni waaw bëgg sëñ bàmba moo gën a gaaw ci boo dee da ngaa bëgg barke wala am koom mm-hmm. bëgg sëñ bàmba nag moo gën a gaaw ci tabbi àjjana ci nit ak ci jinne ñoom lépp sëñ Tuubaa lañ ko delloo woon mm-hmm. waaw kon ñu ne nañ ngoy ci sëñ bi te buñ ko booleeg dara li nga xam ne it uh, fa mu tegoon sëñ Tuubaa wax na imaamuna al fardu allazi la yajmaw wala yusanna wa siwaahu yajmaw waaw loolu ko nag sëñ Tuubaa la ko classé kudu sëñ Bamba na maes na boole ci lim maes na laa ñaareel maes na laa ñetteel fam de sëñ Tuubaa waaw kon sëñ bi nañ ko teg foofee fa mu tegoon yàlla ak yonent bi moom it nañ ko teg foofee mooy li mooy mooy li ñuy jëriñ yeggoon na ci ba sultaanu arifina ji mixrafatul mhm. arif nga xam suñ tubaab da ko ca tegal na ko mhm. yaay potundaa biy tànk géej xam-xam yi waaye lépp di ko mujj sànni fële mhm. lu muy def barke borom tubaa def litti rëy rëy lu aaji borom tubaa tëf lu aaji jëfa jëf waaw ma jox la ci benn benn xisa bu kéemaane sëriñ Issa Diagne dafa am taalibeem bu ko jaaxaloon lool nit di xel ñox mbaar eh. suñu saa defal rek mu réer watiku sëñ Issa yeewu ko euh, boole kooku ay ndaw ne ko nañ ko yóbbul mat jow baax a baxam te boo ko bala koy na am ku mu doxalee digg mag moom hmm. waaw bi ñu ñëwee nuyoo waaw sëñ moom yabal si da ko xaw a jaaxal lool ne nag bala nga koy yeewi dina nga am koo doxal si diggante moom waaw sëñ mat di ko xool mu ko xool nga mu jël ab kaas def ci ndox hmm. barke boobu Touba. jox ko mbaal mbaal naan set. <laughs> waaw des tuuti mu jël kaas ko diw. est-ce que mm. waaw nan mm. lañ ne rëmm ne rëmm ne mm. yàgg mu ne ndax tool yi sori na ma barkeelu ci. waaw suñu ma jël waaw xaar ci yóbbu. waaw que yóbbu ko muy ponkal moo xam ne. Mm-hmm. waaw dañ ko sas bu bay ko. bay sasu dongo yi. ñoom ñetti fan. suñu saane xaaral mañ ma ñëw seet si sëñ Mat Jow ba xam lu mu defal dong mhm. <laughs> ñu paxa ñu ngi sëñ Mat Jow ba mu ne ko ah ngi ca tool yi suñu saane ko tool ya mhm. nañ ko woyee waaye xaar dem woyu mhm. ndax mu seen sëñ Isaa rek mbaar daal di rëpp ñaari bët suuf suuf di raam di raam raam bay si ci moom waaw nuyoo moom jàmmante waaw mel ne du woon moom rek suñu Isaa doon bañ a suñu Isaa ne ko baax na mën ngaa dem bi mu demee mu ne ah sëñ mag jaw daan waxtaan nag waaw foo jaara nguur si nguur ne mu ne fajoo ko ci jën ne fajoo ko ko barke borom Tuubaa laa ko fajee allahu akbar waaw si isaan tey barke borom Tuubaa waaw ñaan ci barke borom Tuubaa allahu akbar ñëpp aajo bu ngeen fi am amiin sëñ bi saafara barke seen xale amiin yaa rabbi li ngeen liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla na amiin jàpp borom Tuuba amiin barke borom Tuuba jooju na ngeen xam ne dugal na leen ci euh, maa ngi leen di wax it ne daa am ajjuma joo xam ne sëriñ am sam suñu sony da ko doon def guddi ajjuma yegg si rek nuyoo mu daal ma ak ikfini yi hmm, bi na ko jàng def ko addi suñ si di waxtaan suñ borom yokk ay leeram taas ñu barke amiin yëg si bi na ko jàng hmm. ñaari sëñ Muntaxa mu yàgg fi te wér. amiin nu ànd ko moom. amiin euh, boobaak léegi nag musuma tàggoo moom. allah maa ngi leen ci di ci yalwaan it. Mm-hmm. yéen it ngeen ci na ngeen ci na ngeen ci euh, góorgóorlu. incha allah jàpp ci ab jaalibatu mm-hmm. ak ik nii mm-hmm. waxtu yu ngeen fi dajeetee euh, xatul. na ngeen ko def ngir jëm sëñ Tuubaa. incha allah jëm naa sëñ Muntaxa moom. may tàggoo. ne ko suñu am sa daa nañ lay jàngal ik nga yàgg fi te wér ba gën a mën a liggéey sëñ Tuubaa te te ànd koo yow waaw mu ne bërit ne ma nikk ma ne ko bi ma toogee fi jàng naa ko fi ñetti yoon bi la nuyu mu ne nikk ne ma na nga xam ne am nga xaas allah akbar nga xaas ke sëñ Basiru na nga xam ne am xaas xaas joojee nag moom laa ko waxoon ne na nga ci dong yëpp barke sëñ ñun ñëpp nañ amin amin jaw amin yaa rabbi amin يا من مدد كل امر يكون خاتم خلاء امين امين وطوف بنا وخوينا وكلنا وهب لنا عسر الختام ربنا امين صلى على النبي وسلم واقضي به حاجه كل مسلم امين يا رب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد احسن الناس امين وسلم عليه وعلى اله وصحبه وعله امين بجاهه فضلا يفوق القياس امين امين امين امين جرجف